am solo ci li ñuy wax neutre moom dafa wax ne neutre amut ci misaal su fekkee ne ay nit dañoo jàppante ak fu mu la mën a fekk wala ñu joxe seetal la ciy dëgg rek nga wax leen ni leen lii kat lañ war a def ki nekkul ci dëgg ñu ne ko nekkoo ci dëgg ki nekk ci dëgg ñu wax ko ne ko yaa nekk ci dëgg waaye waxe ko nii ndax màccinu dimb léeg-léeg dina tax a dimb naqari dimb gàncax la bu bari saalum ca daara ja waxtu yi lay ñoom waaye day neex lool ci biir waaye boo koy dagg boo juumee rek njooy njooy yi ci eh, yi ëmb doom bi fu la laal moom Eh, doo doo dootoo talati la nekk ci biir ñu daan ci def yu am solo nag ndax bu ñorut bi bu ko daggee bu ñu ko weeree dina mën a wecci xam ne càmbee yi dañ koy bëgg lool ak <laughs> doo ko mën a <laughs> kon lu ñuy def ñu defe ko ak euh, bañ a imposer kenn dara bañ a nga kenn ne ko tey nga def lii wala nii laa toll ndax suñu magum daara ma Serigne Mor Mbaye Cissé yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak njéggal daal na faral di wax ne nangu na maa suufeel lool sama bopp waaye nag bu ma ci kenn dimbali boo ne sëñ bi noo def mu ne amaa ah, ngi ñàkk solo rek ñu ne ah ne na bis boo ne ko yaa ngi yaa ngi fiy nga ne naa nee na bu boobaa moom dañ leen àtte ñoom ñaar kon nit ki buy suufeel boppam defu ko ngir euh, suufe waaye da def ngir yëkkati la yow bi mu jàkkaarloo kon bu la yëkkatee yow bi jàkkaarloo yow yëkkati ko mu bokk ak yow fa nga nekk ak moom.